comme sénégalais déjà defaat nañ ko seen ay mbir nangu ko ki nga xamante ne moo fay directeur général liggéey bi mu am mooy continuité rek xool naka lay def ba nit ñi gën ci gis seen bopp te opposition tamit gis ci seen bopp mais mais RTS aussi dañu gis ni loolu defe naa ne nekkatul loo xamante ni mbir nit ci dañu ci am euh, jeexi jaaxa maanaam ña fa nekkoon ki fi nekkoon euh, muy euh, Racine Talla daanaka ku ne gis na ne mu daan doxalee ay ñoñom la daan indi su ko defee ko ñu ku mu jàpp ni sax peut-être kujje politique bi nga faral dafa lay daal di génn RTS wala mu defee loo xamante ni yow da ngay daal di mujjee gedd donc kii ñëwaat donc ban conseil nga koy jox ndax euh, mu bañ a répéter erreur yi nga xamante ni Racine Talla euh, daal def na ko. foofee ci doon RTS Pape Ale Pape Ale c'est un aîné Ale moo ñu jiitu si métier bi. xam mm-hmm. na ñoom ñëpp xam nañ RTS li ko doxloowu loolu ñëpp ko. nga bëgg leen wala nga bañ leen xam nga ne am nañ ay jumtukaay euh, nuñ koy waxatee caméra ak image HD full HD studio bañ nañ ko ba léegi ñaari tour la ñor. jumtukaay caméra yi wax dëgg yàlla nga bañ racine wala nga bëgg ko c'est quelqu'un boo xamante ne studio bi ñu journal yi nga bañ loo bañ bañ bañ bañ jombaat da nga koy nangal ay gudu tànkam mm-hmm. loo bañ bañ di nga xam ne racine n'a pas lésiné sur les moyens lu jëm ci wàllu jumtukaay moom wax dëgg yàlla RTS boo dajee ñun si terrain da leen di xoolaat ni ci kaw nga leen di xoolee seen caméra bu ko tegee rek dàq na technicien. live match rek moo leen dese. non non ñoom koy wax dëgg yàlla. moom day xaw a can. gis nga waaw mais loolu mais loolu wax peut être nit gars yi nañ ko réglé mhm. mais mais jaar RTS moom wax yi moom xoolal ñaari tour yi fi ñu ko yóbbu fi ñu toll nii. Mhm. cest côté technique moom ak côté logistique moom référence lañ ci. ndax def nañ lépp lépp lu ñu mën ba moyen bi wax dëgg yàlla ñu te ko maintenant nag léegi ñuy ñëw nag ñoo xool coût bi nag après mhm. ndax li ñu li ñu facturé loolu la. ndax liñ ci dépensé ëpp na ndax ëpp loolu ñi ñëw nii nag ñoo koy lijjanti mooy équipe ñoom Pape Alé Beeg ñooñu kon côté boobu moom macha allah. Mm-hmm. léegi beneen côté bi des mooy ressources humaines yi RTS bi ñu def ko politique bañ naan dafa am résidence Racine Talla est-ce que maanaam ñoom résidence Racine Talla lañ tuddoo ñenn ñi parce dañ jàpp ne am na ñoo xamante ne booy def lu neex DG bi wala nga ànd ak DG bi waaye bis boo ko critiqué wala nga wane ne àndoo ak moom wala nga wane ne àndoo ak président Macky Sall ñenn ñi agressé nañ sax biir RTS. Mm-hmm. ñu ñu leen di fitnaal ci biir RTS dund nañ fa loolu ñenn ñu dugal leen frigo écarté leen ñenn ñu dagg seen salaire yooyu yëpp parce que politique moo fa doon jaar léegi nag Pape Alé bu ñëwee daf ñuy wane nag ne politique bi amu fi amu fi raison am man damay gis am fierté nit koo xamante danaa man Macky Sall laay ba tey wala taxaw laay milité ba tey nekk biir RTS nekk journaliste buñ génnee ñu toog waxtaan kii naa man mais loolu amuloon RTS. kii Pastef la bokk wala kii nii ak ni am mais yooyu dañ ci dañ ci war a dellu parce que pour man waxuma ngeen nekk fa dafa dugal ay politique mais nit am na droit toog ne man président Bassirou Diomaye du sama du euh, adhéré wu ma ci politique man Macky Macky Sall Macky laa gëm ba tey mu ñu atteste toog di liggéey. mais mais est-ce que dina yomb lijjanti fekk ay nit yoo xamante ni far farloo mu leen fa daal di indi far ba ñëpp xam ne dañoo far yow nga nekk euh, njiit bu bees nga bëgg leen a dindi ci seen ay habitude ndax dina yomb. non doo doo leen dindi seen ay mais da ngay fexe ba. Euh, Euh, def séparation ñaari mbir non da nga def séparation ñaari mbir képp koo xamante ne man dama gëm ne képp koo xam dañ ko fi indi pour ay copinage ak a mm-hmm. la place qu'il faut RTS loolu ñu kirti kirti xam nañu ay ay am na fa journal RTS bi wax nga jàpp sa bopp wala nga daw jàpp sa biir amu fa mm-hmm. doo ko mës a gis mm-hmm. ñoo xamante ne ñu ñu formé lañ ñu mën li def bu ñuy présenté présentation yu correct la def ay reportage yu correct ngay dégg du bokk ak yenn rajo yu privé yi nga xamante yenn nga fay dégg reportage sa nga def document bi ci wolof ba pare après da ko traduit def ko français mm-hmm. mais boo ko traduire textuellement ci wolof indi ko ci français da daanu parce que mooy waral yenn saa ñi wax yéen moom fi nga toog da reetaan xam ne kii li traduire nii or texte bi da ko war a approprier da nga war a dugg ci biir texte bi yow yaa ko def en wolof léegi français bi nag da nga toog nga wax que selon contexte bi ak ni mu ak ak ak ni mu demee mm-hmm. eh, loolu ay jàngoro la yoo xam ne yenn saa yi da nga daje ak moom eh, eh, ci presse bi ci presse privée bi kon RTS pour man jubbanti ko du xaw a du xaw a compliqué du mm-hmm. xaw a compliqué su fekkente ne rek dem na ñam fa fekk tamit yaatal ko parce que loolu tamit surtout ça DG benn mbir la waaye personnalité beneen mbir la. Mhm. buñ la yaatalee dalal la nga ñëw wan leen sa envie sa bëgg-bëgg mën nañ la accompagner après ngeen ngeen ngeen avancer mu bañ a am benn chasse aux sorcières maanaam li fi nekkoon kii élément Macky la jëlee ko fi. Mhm. kii élément la jëlee ko fi kii non non non seetal ci compétence ku mën liggéey nga jox ko ku amul diplôme nag ñu ni ko fa par. parce que waaye waaji nga kooku boo ko dàqee bu kenn wax. Mhm. Euh, ba tey ñu desandi ci nomination yi ndax gis nañ jamono juñ toll nii euh, ginnaaw loolee gis nañ vague de critique yi nga xamante ni euh, ñu ngi koy gis ñeel mën naa ko tuddee sax ci beneen camp bi ndax ñi ngi daal di nu ma ko mën a tuddee sax tiiñal peut-être premier ministre Ousmane Sonko ak wala sax projet wu PASTEF ndax ñoom ñoo xam la ni woon appel à la candidature la ñuy daal di def yenn ci bë bi donc ñu gis ni nomination yu. mujj yi daal gis nañu voilà ñu jigee lool ba président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko wala sax ñi nga xamante ni peut-être bokk na ci parti Pastef bi euh, la ñu daal di tabb ci yenn bërëb bi loolee aussi ñi ñi ci di commencer di critiquer ne seen wax yi daal dafa daal di waroo yow man jàngat nga ciy def. waa réalité du pouvoir dafa am xam nga Macky Sall toogoon na ci plateau 2STV ak Pape Alé mm-hmm. mu ne mënul comprendre euh, Mali seen carburant di jaar fii di dem ñu gën ñoo yomb te pourtant am na lu dolleeku ci charge de transport bi parce que diggante Dakar ba ko ab diggante la mu ne mënul comprendre est-ce que bi mu ñëwee tax na mu wàññi carburant ba Mali gën ñoo yombale. amul mm-hmm. te moom moo fi toog mu ne mënul comprendre loolu il est inadmissible loolu di am réalité du pouvoir dafa am xam nga appel à candidature c'est vrai lu baax la mais dafa couteau la à double tranchant xam nga damay lu couteau la à double tranchant tey jii mën nga def appel à candidature jaar euh, par exemple poste mu am nga mu am ci biir candidat yi koo xamante ne jiite na télé Québec jiite na association ñi nga xam ne dañoo yor ay télé ay affaires yooyu noonu Europe jiite na télé fii ci Afrique CVM ñii la def boo ko liiree da nga naan yee kii de wax dëgg yàlla mais nga indi ko fi comprendre réalité entreprise société sénégalaise parce que dafa am lu ñuy wax la sociologie de l' entreprise. te loolu mooy tenir en compte li nga xamante ne mooy ressources humaines bi mais kooku tey ji bu gagné appel ñëw toog. huit mu xëy loolu nit ñi commencé non non non moi si tu fais pas si genre je te je indi indi fa gestion bam nii lay def. sa xool deux mois lay doxal affaire bi daal def ni craqué problème am gars yi jàkkaarloo ak moom nii te pourtant moo ëpp diplôme ku nekk. dafoo appel à candidature nga indi benn jaar boo xamante ne kat benn tele la jiite bu ndaw wala benn kii nii rek mu ñëw toog premier jour bi ñu ko teg ci mu ñëw woo ñëpp toog lii laa bëgg lii ak lii ak affaire famille la. gérer leen gérer leen gérer leen jaar quelques mois lay def kër gi dox mu dem mais loolu mooy li nga xamante ne mooy manager man pour man fi ñu toll nii li ëpp solo mooy ay manager la ñuy soxla ci direction yi quelqu'un boo xamante ni mën a tirer équipe yi ñu koy topp des managers et des leaders ñooñu soxla. Mm-hmm. mais su fekkente ne tey jii euh, appel à candidature lañ ko jaaree mën na am njëriñ parce di nga am ko am diplôme di nga am ko am. Euh, ku am xam-xam bi mais est-ce que forcément euh, dina dina doxal mbir mi comme ni nga ko bëggee. est-ce que temps bi dina la ko may. est-ce que temps bi loolu benn mbir la beneen mbir nag côté bu positif bi nag mooy di nga fa am au moins au moins koo xamante ne le meilleur wala l'un des meilleurs nga am ci poste bi. Mhm, mhm. waaw di am l'un des meilleurs ci poste bi parce que appel à candidature ni ñu koy waxee tamit ba tey président day am marge de manœuvre ah. parce que bu ngeen defee seen appel à candidature mën naa ne jaara dugalal Moustapha dugalal euh, ne Mahfous dugalal keneen dugalal keneen dugalal ñoom ñëpp ñu dugal léegi bu ñu dugalee ñu jox président euh, Bassirou Diomaye mu tànn léegi jury bi dañuy tànn ko bu jury bi tànnee tànn tànn tànn tànn mu ne ah ñii ñëpp on a reçu par exemple quinze candidatures euh, quinze candidatures ñu tànn ko tànn ba mu ba mu des cinq cinq yi jaara jaara rëcc si ak Mahfous ñu ñëw mais bu ñu ñëwee président cinq yi cinq yi cinq yi en tout cas ñoo nekk ni kon toujours le dernier mot revient au président. Mm-hmm. même bu dee appel ñi dañu foog ne def appel à candidature rek toog tiir tiir tiir ko au sort du demee noonu de président day am marge de manœuvre soit trois lay doon wala mu doon cinq wala ça dépend bu ñu tànnee ba pare ne ko ñii ñoo ñii ñii ñii ñooy euh, ñi fi sës ñi des ñi gën ñi ëpp ñi ëpp profil bu gën a baax président acca yow léegi yaa yor sa cëggal guy xoolal. président daal di jël dëkk rek ni ñii nga ma tegal ñii ñëpp wax dëgg yàlla comme ñoom ñëpp mën te yàlla def na jaara yëg si ba fii kon jël naa jaara mhm. kenn doom du mu wax parce que après damay dégg sax jaara jotee wax que ni euh, ñooñu su leen a a bi mhm. mais tey ji yaa ngi falu amoo ko benn DG fu mel ni RTS léegi da fi bàyyi Racine Talla mu toog fi 6 mois wala 5 mois wala 4 mois mhm. léegi fu mel ni feneen ak feneen ak feneen da nga leen fu mel ni port ak ñeen da nga leen bàyyi ñu toog yow nga dem appel à candidature mhm. di liggéey ak ñoom te yow faloo leen falaawaaloo leen seen i toog ci wet gi di xaar donc pour man ay projet la yoo xamante ne ay proposition la yoo xamante ne au fil des temps mën nañuy avancer ci biir année bi après nga yóbbu assemblée nationale yóbbu beneen defaat nii état noonu lañ koy jooyante mi dem ndànk-ndànk mais mhm. appel à candidature bi il faut y aller euh, avec Mhm. waaw parce que loo poste la boo xamee ay ay ay ay ay. jàpp nga ne man gëm dugal loi bi. mais yan yan direction lañ koy def. Mhm. parce que ah, mën nañ dugal loi. ñu tënk ko ci ay direction xam nga li ma la wax dugal loi ñu ne ñu cité ko yii yi ak yi ak yi ak yi yëpp appel à candidat appel mhm. appel à candidature impôt et nga xam ne toujours ñoom. ñoom ñi fa nekk ñoom ñooy compétiraat parce que loolu mooy loolu mooy njëriñ bi. Mhm. boo ko defee par exemple impôt et domaine agent impôt et domaine ñooy compétiraat seen biir ñoom pour jël place boobu trésor nga def ko noonu tamit douane nga def ko noonu yooyu ay mbir la yoo xamante ne euh, par exemple bu ñu fa defee appel à candidature mën na mën na mën na mën na am pertinence bu baax a baax a baax. d' accord ñu daal di waxtaanee beneen mbir ñeer jamono ji ñu toll nii nag yenn ci journaux daal di def ay euh, ndaje ngir daal fexe naka la ñuy def ba dundalaat li xamante ni mooy euh, parti boobu la di gis nañu jamono ci ñu toll ni Khalifa Babacar Sall ak amina Aminata ngi Ndiaye defe naa ne ay fan ci ginnaaw ba ni ki euh, tey gis nañ euh, yenn ci journaux yi di xam na ni daal boobaak léegi ñu ngi fexe di amal ay ndaje ngir daal fexe naka la ñuy dundalaate parti bi la di parti socialiste ndax jàpp nga ni PS na dayo ngir nekk ci kanamu kuje politique bi.